le plaisir de recevoir sur ce plateau Moustapha Wade il est le président de l'Alliance pour la démocratie et le développement nekkit président de la coalition jot na bokk ci la grande majorité présidentielle Moustapha Wade ñu ngi lay euh, nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Awa di la gërëm bu baax a baax di la sant di sant surtout waa 7TV suñu kër la. Hmm. gëj naa fi trop nag. mais am naa mbégte bu baax a baax ñëwaat fii di nuyu Sénégalais yëpp. Mhm. di gërëm ñëpp di leen sant yaakaar ne li ñu war a waxtaanee nii tey dina amal waa Sénégal njëriñ. c'est le plus important di la remercier ci sa euh, présence euh, ñuy nag euh, doore waxtaan wi ak seen coalition coalition jot na. Mhm. ñu xamee leen woon ci wetu Ousmane Sonko ay at ci ginnaaw. Mhm. ngeen tabax lu bëri ensemble ñu jékki-jékki yëf yi daal di dakk ngeen cheminer seul ak yeneen force politique waaye dernièrement ngeen jël une décision. surprenante pour ñenn ñi mooy rejoindre la grande majorité présidentielle ndax mën nañ ci am explication qu'est-ce qui a motivé cette décision mhm, Mamadou d'abord balaa may commencer waxtaan wi da nga may may ma jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen euh, mbokk ci li nga xam ne moom moo fi xew temps yi mhm. di massawu yi itam blessé yi di leen ñaanal prompt rétablissement ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen alal yitam ñu leen di massawu di ko méttitlu koom ñoom Euh, di ñaan yàlla yàlla indi jàmm le plus rapidement au Sénégal. amiin amiin. bon la coalition Jotna a toujours pris ses responsabilités loolu yow xam nga ko. il y a des moments dans la vie où nit ki day jël ay responsabilités au Sénégal il y a deux camps. Mm-hmm. benn camp boo xam ne ci ñoom lañ nekkoon déjà nous avons travaillé avec. Euh, la tête de liste de l'opposition bu ñu ko bu ñu ko mënee wax loolu pour ne pas dire le chef de l'opposition bon Idrissa Seck ne il est revenu donc c'est lui le chef de l'opposition donc en tout cas l'opposant le plus virulent mhm. nous avons été avec lui nous avons travaillé avec lui euh, li ñu ca génnee waxoon nañ ko fi plusieurs fois du benn yoon du ñaar yoon mhm. bi ñu demee ba nga xam ne nous sommes au tournant de l'histoire nous avons choisi librement d'accompagner le président Macky Sall jusqu'en 2024. C'est ça qu'on avait dit lors de notre conférence de presse. Qu'est-ce qui explique ce choix Parce qu'en réalité, nous avons été trahis partout où, où, où, où on était. D'abord, coalition Diotna quitté Ousmane Sonko. Ousmane Sonko m'a quitté coalition Diotna. Mm -hmm. il faut le rappeler. Oui. Bin on a, construit une coalition avec, euh, avec Wallou. Vous savez ce qui s'est passé après. Mhm. On a construit une nouvelle coalition avec Tabar. de de de Boubacar Camara vous savez aussi ce qui s'est passé c'est pourquoi il était très important de reculer ñu waxtaan suñu biir xam ne maintenant qu'est-ce qu'il faut faire le président Macky Sall kenn du wax ne liggéeyul il a fait un excellent bilan donc il fallait le ah, soutenir ah ko laaj mais avant loolu euh, vous avez été avec Ousmane Sonko mm -hmm. dans Jotna mm après euh, ngen dem ak euh, wàllu Sénégal mhm. ci mm -hmm. benn coalition bu ngen bu mhm. ngeen tabaxoon ensemble mhm. amu lañ satisfaction. Mhm. ngeen ànd ak Boubacar Camara. Mhm. après mu dakk mhm. euh, certains peuvent se demander ba xam la problème c'est pas vous loolu yëpp en si peu de temps est-ce que ñoom ñoo ñoom ñoo sikk ni ñu ko mën a waxee. wala aussi yéen yéen war a xoolaat seen bopp. ça peut être partagé. vous savez que Mamadou man duma koo xam ne man damay tàgg sama bopp. mën naa am ñun ñooy problème bi c'est possible. mën naa am itam ñoom ñooy problème bi. rappelez-vous Boubacar Camara itam coalition oui il l'a quitté après. je pense même que ci ñi waral problème bi. voilà te moom moo waraloon problème bi. il a fait une coalition avec nous moom moo waraloon problème bi. il a fait une coalition aussi avec Wallu et il est reparti encore. Mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon coalition ils sont retrouvés pour créer avec d'autres forces politiques Yewwi Askan Wi et vous savez ce qui se passe aujourd'hui donc c'est la politique qui est comme mhm. a euh, yow nan la ko ma sax lan moo leen tere toog ci kujje gi mais ngeen jël choix def ko rejoindre ñi ngeen mës a combattre muy euh, ñi fi nekk jamono ji di diriger. parce que même ci kujje gi ñi nga xam ne ñoom ñoo doon combattre Ousmane Sonko ils sont actuellement dans dans dans l'opposition mën na la ci citer ay ay ay ay exemples yu bëri Ousmane Sonko ñi mu doon dingat naan ils sont du système ce sont ceux-là qui l'entourent aujourd'hui les rôles ont changé. les rôles ont changé dans la vie politique il faut savoir changer quand ça l'exige. est-ce que loolu c'est convaincant maanaam bu ngeen amee benn objectif am euh, yoon bu ngeen bëgg a tegu. wàcc ko yéeg jaar fii jaar fi on a du mal à à à vous cerner en fait à à comprendre réellement lan la. et ça c'est toute la classe politique sénégalaise qui est comme ça malheureusement c'est pourquoi il est très important à notre niveau nous tous. Mm-hmm. ñu xoolaat suñu bopp xolaat exactement qu'est-ce que nous voulons. la coalition jot na est restée telle qu'elle est ce sont les gars qui viennent et qui et qui et qui repartent. sauf que c'est un chemin en zigzag. oui c'est ça depuis tout ce temps. malheureusement la politique c'est un chemin à zigzag. regardez ce qui se passe au niveau de Yewwi Askan Wi. Mhm. regardez ce qui se passe au niveau même de la majorité présidentielle. c'est vrai c'est-à-dire que au Sénégal présentement tout est à refaire. il faut oui man li ma li comprendre mooy. Mhm. ànd ngeen ak ñii ànd ak ñeneen. Mhm. Ousmane Sonko ñoom doon critiquer tey ñoom la àndal. waaw Macky Sall. Euh, am na ñu koy ñu koy voilà ñoom ñoom ñoom lay liggéeyal. Mhm. maanaam après dafa mel ne benn mélange boo xam ne ñoom ñëpp a yem. c'est ça malheureusement et c'est ça maintenant qui est à combattre par toutes les forces vives de la nation sénégalaise. comment amul kenn koo xam ne tey au niveau de la vie politique sénégalaise mën nañ laa wax ne lii mooy sa conduite. lii mooy sa idéologie lii mooy ta manière de voir les choses les manières de voir les choses changent en fonction des circonstances. des intérêts aussi souvent. des intérêts en jeu. seen ànd ak Macky Sall yaa tàmbali sànq mais eggali woo ko. Mhm. lan lan moo ko waral naka ngeen. d'abord toogee ba ne ay nañu ak moom. d'abord nous avons été trahis par l'opposition avec laquelle nous avons toujours cheminé. Mm -hmm. ensuite le président Macky nous a tendu la main. il a nommé un des nôtres Ablaye Niane pour ne pas le nommer euh, à la à la BNDE. Mm -hmm. et comme nous avons toujours été ensemble il ne nous a jamais quittés malgré les trahisons qu'il a vécues rappelez-vous que ñun ñoo demoon ak wàllu wàllu ne ko duñ la jox tête de liste au niveau de Mbacké. et oui. malgré tout il est resté dans la coalition. loolu tax ñun itam à notre niveau il fallait qu'on l'accompagne et. ce n'est pas aussi une honte d'accompagner le président de la République Macky mais le problème mooy. Uh-huh. li waraloon coalition jot na ba Ousmane Sonko retiré wu jël ay uh-huh. licence am. Uh-huh. est-ce que tey jox leen ko dëgg. dans la mesure où il avait des soupçons ci ñoo xam ne ñi ngi euh, euh, na la ko mën ñi ngi jege Macky ci waxtaan wala yu ni mel. il n'a aucune raison parce que ki nga xam ne nee na moom moo demoon pour rencontrer Macky Sall en l'occurrence et en ce moment là c' Bruno Derneville qui était le président de la coalition Jotna alors que kenn tàgguwu ko. Mhm. et Bruno était resté. après s' est passé. après Ousmane Sonko a pris ses responsabilités pour pour dire que moom nekk foo xam ne dañuy dem gisi le président de la République alors que celui qui est parti le voir nee na bi dem tàggu na ko il l'a dit devant tout le monde vous l'avez entendu. lu ngeen mën retenir ci loolu que Ousmane Sonko li ko mhm. moom. ah ça Euh, <laughs> dernièrement vous savez que moi pour pour pour juger Ousmane non, Sonko non juste pour pour faire le en fait dire que voilà pour que du Barthélémy Dias du Ousmane Sonko du keneen tous les hommes politiques au Sénégal doivent revoir leur manière de faire je ne peux pas faire un jugement de valeur sur la personne d'un homme politique bàyyi sama bopp parce que moi aussi je suis acteur de tout ça li ma bëgg a xam oui mhm. allez-y allez-y je n'ai jamais été par exemple en touche ci lépp loo xam ne dañ koy décider au niveau de Jotna j'ai toujours donné mon point de vue mm. avec courage d'ailleurs donc je ne peux pas juger les autres et me ah, mais le président Macky Sall mm-hmm. euh, da ngeen ko difficile mm-hmm. parce que c'est quelqu'un boo xam ne jamono ci euh, neexul ci côté mm-hmm. même s'il a encore les pouvoirs il est critiqué gars jàpp nañ ne côté droit de l'homme côté liberté côté démocratie ça a reculé avec lui yéen année yi ngeen di xeex opposition bi xëy na da loolu. tey jii qu'est-ce qui a changé euh, la exactement. vous savez Mamadou ce qui est éloquent dans notre prise de c'est que on oui n'a de sens que lorsque celui qui le lorsque le titulaire. Mm -hmm. a la possibilité de dire, non. moi j'ai été l'opposant principal du président Macky dans le département de Fatick. Mhm. de 2012 maintenant. c'est parce que je me suis rendu compte que de l'autre côté. je n'ai vu que une situation qui n'arrange pas le pays te bëgguma cee bokk je n'ai jamais été dans une équipe de violence ou de pyromane mu bëgguma cee bokk. ils ne valent pas mieux que Macky Sall. c'est c'est Macky Sall qui vaut mieux que ces gars pour pour pour pour le dire et je l'ai toujours dit je vous ai dit ça dans ce plateau-là. Mhm. waxoon naa la ne am na ñoo dans l'opposition il y a pire que Macky Sall wax na la ko du ben yoon du ñaari yoon. et nous devons choisir. Macky Sall a un bilan qu'il peut défendre il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour le Sénégal def na ko lépp lu mu ci def rek da un bilan matériel. un bilan un très bon bilan matériel. mais malheureusement les oh. Sénégalais ne retiennent pas ça. aujourd'hui ce bilan matériel même dañ que est-ce le plus important. c'est pourquoi je l'invite man damay inviter président Macky parce que je n'ai pas de conseil à lui donner. Mm-hmm. il est plus averti que moi dama koy invité ne ko. Mhm. li mu fi def kenn mosu ko fee def. ci lu baax ak ci lu bon. ci lu baax man ci lu baax laa gis kenn mosu ko fee def par par sur les réalisations matérielles gisuma kenn ku fi mu a def kon ku ko kenn yàqal. maintenant au point de vue moral dañuy naan Macky Sall dafa yàq ji koy wala kenn yàqul ko kenn au point de vue moral nous some solidairement responsables de ce qui se passe. mais regarde au niveau des des, des réseaux sociaux dafay xew. oui mais loolu daa lu ko li ko provoqué yëpp chaque fois c'est toujours comme ça vous savez au Sénégal Mamadou Awa quand il s'agit de veille d'élection présidentielle on diabolise le président en place on lui on on on, prête tous les noms d'oiseaux c'est lui le démon mais c'est c'est encore récent Abdoulaye Wade à un an des présidentielles il ne pouvait plus travailler góor gi dee naa suul leen ko lu ne wax nañ ko ko. sauf que Wade son seul problème c'était euh, la troisième candidature son fils peut-être mais avec Macky Sall les problèmes ont démarré bien avant. ak ñi nga xam ne jàpp nañu ne Ablaye Wade avait clairement retiré ce ticket présidentiel là. après la clameur publique. il a reculé il a il a reculé il a retiré le ticket présidentiel il a demandé à tout le monde de manifester comme il le voulait. c'était un sage alors c'était un sage. et pourtant on n'avait pas retenu sa sagesse. on lui a fait tout le tort du monde. c'est vrai moi j'étais contre ces gars-là. Awa ah je suis avec Macky Sall Afrique je n'ai jamais voté Macky Sall <laughs> mosuma koo voté. Mhm. j'étais toujours son opposant. bon on ne comprend pas pourquoi ngeen rejoindre ko. parce que nous avertissons à chaque fois j'avais un ami chaque jour <laughs> mag moom ñoo nekkoon may naan non non non il faut qu'on change Macky moo fi ma ne ko Macky du fi def dara lu fi Abdoulaye Wade deful. tey encore je les avertis Macky Sall a fait présentement un bilan que personne n'a jamais fait et je suis mieux placé que quiconque pour le dire parce que je n'ai jamais soutenu le président Macky Sall je le soutiens actuellement te awma ci benn ndombo tànk je suis le seul homme politique fii nga xam ne fii ñu nekk nii je n'ai jamais reçu de subvention venant de personne man maay def ci sama alalu bopp kon je suis un homme politique très libre Macky Sall bilan bi mu fi def kenn mosu ko fee def looloo tax nag looloo tax ñun du ñu bàyyi du ñu bàyyi parce que tout simplement Macky Sall doit quitter et qu'on qu'on qu'on qu'on tout dans les touches duñ ko def parce que Macky Sall dina fi jóge keneen dina ñëw et nous resterons ici je mais vous êtes un homme libre yaa ngi koy wax léegi. lekkaloo leen dara joxuñ la poste. Mhm. donc sa wax sa jugement mën na objectif. Mhm. mais à un moment boo xam ne Macky Sall est critiqué diabolisé certains demandent sa démission maintenant yow nga koy. surtout mais Mamadou parce que je ne suis pas comme ces gars là. moi je suis un homme très libre. ñoom ñi demandé le le le le départ de la démission de Macky Sall. oui ce sont des despotes. comment ça. le peuple souverain. a choisi Macky Sall en 2019 jusqu'en 2024. oui mais sauf que ce peuple est-ce que c'était le peuple avec la mesure où élection yi am na ñu ci bokkul ñoo à dire. depuis depuis la dernière consultation présidentielle président jusqu'en 2024 et je soutiendrai ce jusqu'en 2024. 2019 parce que c'est ça qu'on appelle respecter la volonté populaire. moi en mais est-ce que Macky a la volonté populaire moi en j'avais un candidat qui s'appelait Idrissa Seck. Oui. Le peuple ne l'a pas choisi. Un autre avait un candidat qui s'appelait Ousmane Sonko. Le peuple ne l'avait pas choisi. Un autre avait un candidat qui s'appelait Karim Voilà, un autre qui, n'était pas venu. Qui n'était pas venu. Voilà. Donc, donc, parce que li wax sànq. parce que quand même il y avait tout ça et, et que ce qui est factuel c'est que le peuple sénégalais pour cent a choisi Macky Sall jusqu'en 2024 donc il n'est pas question de démettre Macky Sall avant 2024. mais Macky Sall ce qui lui arrive là est-ce l'a pas dans la mesure où yaa koy wax en 2019 on a voté pour lui mais qui a voté pour lui ñi voté nag te bëggoon ko def ñu xañ leen ko maanaam ñi doon supporté Karim Wade ñi doon supporté Khalifa Sall ñi doon supporté Malick Gakou te ñii parrainage xañ leen ñii ay euh, loi yu kenn xamul xañ leen loolu aussi c'est des trucs yoo xam ne on les reproche à Macky Sall aujourd'hui je fais partie de ces jeunes là qui combattaient ça oui je fais partie des jeunes là qui combattaient ça am bi metti maanaam ay mandat am yëpp ñoo metti bu njëkk moo le président Macky dans son premier mandat il a deux il a deux dossiers judiciaires. Mhm. Karim Wade ak Khalifa ça faisait mal à tous les Sénégalais mosuma cee ànd. et je salue au passage la sagesse du président Khalifa Sall. Mhm. qui malgré tout a répondu à l'appel du président de la ouais. République. son discours a été historique. il n'a pas gardé rancune. c'est ça qu'on appelle homme d'État. Mhm. il est venu malgré tout. les gars de Karim Wade sont venus malgré tout. et c'est comme ça qu'il faut en dialoguant en dialoguant en se parlant sincèrement mais dialogue day am ay gages de bonne foi. ces gages président koy joxe jamono ces gages de bonne foi là c'est nous autres interlocuteurs qui devons en qui qui qui qui qui qui devons les définir clairement si on est des hommes politiques nous devons être des gentlemen vous savez je n'ai pas de leçon à donner au président Macky je n'ai pas non plus de leçon à donner à Ousmane Sonko. Mm-hmm. ko nga xam ne man li ma sekk ak moom sax sekkuma kook Macky oui moo tax mu jaaxal ñu bëri. voilà c' est vous avez été très proche. c' est pourquoi maintenant il faut retenir que Moustapha Wade est un homme libre. vous savez c' pas est pas facile en ces moments là de venir faire un débat sur la situation actuelle. tout à fait. parce que les uns et les autres ont peur d'être indexés. Mm -hmm. alors jamono ji dafa metti. alors que la République en a besoin. moi je suis un fervent défenseur de la République. Mm-hmm. je ne défends pas une personne. gis nga Macky muy Macky Sall muy Ousmane Sonko ils ne sont pas plus amoureux que moi. de ce pays là le Sénégal. ils n'ont pas fait dans ce pays là ce que je n'ai pas fait. ils ne méritent pas mm-hmm. je leur dois tout le respect. parce que Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui. pour cent des Sénégalais ont voulu qu'il soit président de la République. actuellement certainement. quelque chose comme 50 pour cent peut peut peut vouloir qu'il soit président de la République donc il faut le traiter avec beaucoup de respect. la situation bi ñuy vivre jamono ji cette tension mhm. euh, responsabilité kan la. les responsabilités sont partagées des deux côtés. ku ci nekk sa sa bopp ku ci nekk. Macky Sall d'abord mais mais la grande responsabilité incombe au président de la République. Mhm, ci parce que il est dépositaire de la volonté populaire moom lañ fal. Mhm. faluñu Ousmane Sonko. moom lañ jox l'exécution de notre budget joxuñ ko Ousmane Sonko moom la ñu jox police ak gendarmerie ak armée ak justice ak lépp loo xam ne moom moo war a doxal réew mi. ak un budget colossal. ak un budget colossal pour qu'il pour qu'il pour qu'il pour qu'il exécute les les les les dépenses publiques. mm donc la protection de la ménagère relève de sa compétence. mm jàpp nga ne am na ci part de saleté bu mag. Euh, Ousmane Sonko ñu ba dañoo jàpp ne c'est quelqu'un qui est dos au mur. oui donc ni muy. Euh, ni muy réagir mën nañ ko comprendre. c'est-à-dire que c'est un instinct de survie Ousmane Sonko pour survivre il a besoin de ce qu'il est en train de faire. ah oui que je ne cautionne pas. ah ok. je ne cautionne pas du tout ce qu'il est en train de faire je n'ai pas de leçon non plus à lui donner. Mm-hmm. mais vous comprenez sa situation. mais je sa situation quand même. je voudrais qu'il soit encore plus élégant. naka. parce que les messages et les déclaration qu'il est en train d'émettre. ah voilà notre message yi muy joxe ak déclaration yi muy def bokkul ci li nga xam ne mën naa indi jàmm. est loolu rek la am comme moyen. loolu rek la am malheureusement comme moyen c'est pourquoi Mamadou Awa Ndiaye bu ma permettez. Mhm. le président Macky Sall man dama koo jox respect bi nga xam ne moom la yeyoo. parce que au moins il nous a montré que mën nga jàngee Sénégal ba nekk président de la République mhm. mën ngaa juddoo Fatick être de d'une d'une famille modeste, modeste ouais. et venir être président de la République du Sénégal mmh. étant président de la République du Sénégal il a réalisé ce que ce président n'a jamais réalisé au Sénégal mmh. il l'a fait gàcce ngalama moom mhm. on a besoin de lui dans les instances internationales pour encore étendre le drapeau du Sénégal mhm. li ma koy ñaan mooy ngir yàlla bu mu topp les les jusqu'aux bouddhistes il a beaucoup de choses encore à faire pour l'humanité et pour le Sénégal ailleurs d'ailleurs mhm. kon bu mu topp ñi nga xam ne ñoo ko wax di je suis convaincu que s'il avait autour de lui des personnes comme vous xëy na tey duñu duñu duñu egg fii non non non mhm. parce que ànd ak nit terewul wax ko c'est ça nga xam ne moo gën ci réew mi mhm. parce que fi nekk ni réew mi toll nañu foo xam ne ñëpp ñëpp a jaaxle je parle même pas euh, des des commerces fermés des milliards perdus mais benn bakkan bu rot rek euh, vraiment lu lu métti la ci Sénégal rawatina tey ji on parle de 20 bu dee depuis 2001 2021 on parle de plus de 40 morts. voyez-vous ce que cela fait boo gisee man je n'ai jamais été avec lui c'est parce que je me suis rendu compte que il a la volonté de bien faire mm-hmm. mais autour de lui ça ne va il est mal entouré. ah oui. C'est ce que j'ai constaté. Et c'est un responsable de la grande majorité présidentielle C'est un responsable de la grande... C'est moi-même, Moustapha, président de la coalition Jotna, membre qui le dit. Qui est là et qui prend position au moment où beaucoup de personnes n'osent pas se prononcer dans la situation actuelle. Justement. xam nga li mooy mooy mooy mooy lan. Ceux qui étaient à la salle des banquets pour le dernier conseil des ministres de Abdoulaye Wade. Mhm. personne d'entre eux n'est présentement dans le Parti démocratique sénégalais. Et ce sont ceux-là qui conseillent certainement à Abdoulaye Wade de faire, de faire un troisième mandat. C'est cela peut-être qui disait à Karim Wade que tu es le plus beau du Sénégal. Le président Macky Sall ne doit pas tomber dans, dans, dans, dans, dans ces pièges-là. Sauf que lui, il n'a encore rien dit. Il n'a encore... C'est pourquoi, c'est pourquoi man bokkuma ci ñu koy critiquer sur le troisième mandat. Mhm. parce que waxagul. parce que il ne l'a pas dit. mais seulement les actes tous les actes posés vont le sens dans la vont le sens vont dans le sens. mm de la gestion des affaires publiques. man je suis parfaitement d'accord avec le président de la République qu'il soit encore silencieux. quand même je voudrais qu'il prenne même la. si vous souhaitez que mu possibilité de lui parler j'allais lui dire ça. là il a votre soutien mais jusqu'à quand. jusqu'en donc vous ne serez pas avec lui bu nekkee candidat. ñun li ñuy xaar mooy président de la république wax xam nga booy gunge nit. Mhm. Amadou booy gunge nit doo ko jiitu. c'est dañ koy bàyyi mu jiitu wala nga dend ak moom di wax ak moom mais mënoo bëgg gunge nit ba pare jiitu ko. donc yéen a ngi koy déglu. man nekkuma koo xam ne dama fee nekk pour jox Macky Sall des leçons de morale il en a suffisamment c'est pas n'importe qui. il a fait un parcours exceptionnel boo bëgg naa koo def. Mhm. président Macky Sall dama koy ne moom ingénieur la un nulard ne peut pas être géologue c'est pas n'importe te ku yàlla tànnul tam doo nekk président te ku yàlla tànnul ku doo nekk président te loolu opposant yi bëgguñu koo dégg. Mhm. opposant yi Ablaye Makhtar Diop wax na ko keroog. bëgg nañoo tari saar bu nekk ba mu ne ba mu des saar boobu di di wax de nguur yàlla koy joxe. <laughs> man dama ne Mamadou Awa je suis à l'aise pour parler des deux mosuma un poste politique et je suis formé la may liberté à la bonne école. au po au point de vue administratif comme au point de vue politique. et naa nga génne ci wetu ñoom Ousmane Sonko. c'est ça et je suis issu aussi du parti socialiste. Mm-hmm. j'ai été très bien formé et à la bonne école. man jaayuma yëfu star wala may jaay yëfu guerrier guerrier guerrier ils sont au champ de bataille guerrier amul Sénégal parmi les politiciens li fi am mooy on doit tenir un langage d'apaisement de part et d'autre. de part et d'autre nekkuma fi pour faire plaisir à Ousmane mais boo dégloo. nekkuma fi xam nga maa ngi naan la sànq président Sall amoon ñu mel ne yow ci côté am xëy na du ñu egsi mhm. parce que à ah, écouter le ministre le porte-parole du gouvernement. Mhm. wala ku mel ne Ismaïla Madior Fall. Mhm. wala ministre de l'intérieur on a l'impression que dara xewul jamono ji alors que les Sénégalais ont peur certains même hésitent pour génn seen kër. c'est pourquoi man Mamadou danga may may ma les forces de défense de sécurité. voilà de véritables jàmbaar. Mhm. ils ont laissé leur famille pour nous protéger. ils ont laissé toutes leurs préoccupations sociales pour nous protéger dans des conditions très difficiles gàccee ngalaama ñooñu. mais am na lu ñu mën a wax aussi ci ni ñuy doxalee. am na nu ñu war wax ci lu ñuy doxalee mais les les circonstances dans dans lesquelles ils se trouvent. des fois ñoom ñoo leen koy obligé. parce que ils ne font pas de de de de cœur. ah man je parle même moom xëy na du loo ne da nga koy mais quand on voit des forces de sécurité des forces de défense euh, yore benn xale def ko bouclier. Mhm. loolu c'est à dénoncer. c'est à dénoncer carrément. benn la mhm. ñaareel bi aussi on voit des gens armés. ay mhm. euh, armes yoo xam ne du police. ñu yëg ci veut dire que ne am na lu ñuy accepté loo xam ne xëy na waruñu ko nangu aussi. c'est c'est ça c'est pourquoi de part d'autre moo la la la réponse la la 75 pour cent de la responsabilité ou bien est du ressort du président de la République et du pouvoir actuel. politiciens daal ñoo ñu sonal si je comprends bien. ñoom ñoo ñu sonal. c'est pourquoi je lance je lance un appel à la jeunesse sénégalaise. ko mhm. ñoom ñooy daw tey di taal di sànni pour réclamer plus de démocratie plus de liberté ñoom ñoo doon daw aussi au temps de Wade. Mhm. et qu'est-ce qu'ils ont récolté après. on les a oubliés. waaw kan nga fi dégg tey muy wax ci Mamadou Diop. Mhm. bu ñu demee place de l'Obélisque kese lay lay la ñuy wax turam alors qu'il c'est c'est un martyr c'est un martyr je lance un appel aux jeunes sénégalais ne leen ñii nii ngeen di topp c'est c'est tout à fait naturel et normal mais il faut avoir de la retenue mhm. il faut ah, avant ñu ñëw ci manifestation yi am ren ak liñ ci euh, njort ne am na ci lu ñuul Ousmane Sonko son procès sa condamnation ban gis-gis nga ci am à corruption de la jeunesse. bon vous savez que man je ne veux pas commenter une décision de justice. mais la pub s'est dégonflée aussi. mais mais en tant que citoyen moi j'ai été déçu. Mmh. très déçu d'ailleurs. de 2021 maintenant on nous dit que Ousmane Sonko n'a pas violé il n'a pas menacé quelqu'un de mort et et malgré tout on le condamne pour corruption à la jeunesse ça sont les les les les juges qui qui comprennent. Oui. et qui peuvent expliquer mais je dirais tout ça pour ça. lii dafa ñaaw dafa ñaaw et personne ne peut le cautionner. lan moo ñaaw dañ ko traîner dans la boue. pour à la fin le le blanchir. liñ ko traîner dans non non non man sax li liñ def Ousmane Sonko c'est pas mon problème mais les personnes qui ont été tuées des commerces qui ont été saccagés des entreprises qui ont été détruites il y avait une véritable volonté de faire mal. mais loolu aussi Ousmane Sonko innocent wu ci. il n'est pas du tout innocent dafa am posture boo xam ne boo ko boo boo ko amee nee na la Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui sa parole porte peut-être tey bu demoon aux élections il peut avoir pour cent il peut gagner au premier tour il peut gagner au premier tour mm-hmm. kooku noonu dafa daf il doit être regardant sur ses déplacements même déplacement de sa famille je n'ai jamais dit ko Ousmane Sonko est innocent dans ça il a loo koy reproché il a une grande part de fi muy teg tànkam la war a bàyyi dafa war a xam ne dañ koo yaakaar dafa am ñoo xam ne seen yaakaar yépp ci Ousmane Sonko lañ ko def Sénégal da koo yaakaar parce que il fait partie des jeunes yi nga xam ne am nañ ci moom yaakaar. Mm-hmm. même famille am waxatuma la Ousmane Sonko même son véhicule ne doit pas se se traîner n'importe où. waruñu ko gis n'importe où. ça c'est clair ça voilà li gën a métti nit ñi mooy ce que Ousmane Sonko incarne en termes d'espoir et de valeur bugg jaar ni nax saay. kon da jàpp ne la Sweet Beauté même si. il a été établi que Sonko n'a pas lagamin euh, la mhm. euh, am na lu bëri lu mu wàññi ci moom. lu ci wàllum notoriété. ci wàllum peut-être réputation ci wàllum xëy na gis-gis bi ko nit ñi doon xoolee. c'est clair tous les hommes indépendants ñi nga xam ne il sont dotés de raison xam nañ ne Ousmane Sonko même buñ waxee ne violé wul menacé wul de mort c'est très bien mais quand même waru fa woon dem. bu ñu kenn wax ne c'est un procès moral bu ñu kenn mais mais mais c'est ça aussi nous avons dit que Macky Sall a fait un bon bilan matériel mais c'est le bilan moral qui ne va pas du <laughs> loolu la nit ñi di wax c'est vrai kon bu ñu kenn wax ne faluñu imam mais malheureusement la jeunesse l'écoute la jeunesse le suit la jeunesse voilà est sensible à son discours mm -hmm. donc euh, voilà ñoom ñoom ñoom xooluñu loolu c'est ce gars qui a été élu maire de Ziguinchor c'est pourquoi il est de notre responsabilité d'attirer encore l'attention comme je l'avais fait euh, de dire que non non non j'avais dit ici que pour avoir un bon président nous devons être exigeants avec notre opposition li nga gis dal na sa xel ñu dara dalu sa xel ak ñi fa nekk ñëpp ak ñi fa nekk yaa Khalifa Sall ya Déthié Fall yaa Bougane Gueye Dany yaa yaa yaa la liste peut être très longue Ousmane Sonko waxu may waxam moom moo jiitu j'ai beaucoup de respect pour Ousmane Sonko pour Khalifa Sall et pour les autres mhm. ce sont de grands hommes mais dama laa ne la fa nekk dara dalu ci sama xel lu tax loolu le discours qu'il parce que le discours qu'il qu'il da d'abord leur dernière déclaration c'est pas responsable mooy dire que Macky Sall doit démissionner oui, Macky Sall ne, le... Macky démissionnera pas mm -hmm. va pas démissionner si Macky démissionne il aura trahi le Sénégal parce que on l'a élu pour cinq ans. ñoom nee nañu li xew ni mooy trahison. c'est pas une trahison li xew nii ñoom ci lañ bokk. opposant bi. opposant yi ci lañ bokk. le F24 en fait partie pourquoi le F24 di que nous nous nous allons exiger de Macky Sall qu'il dise qu'il sera candidat ou pas Macky n'a pas à dire à qui que ça soit bu ko neexee candidat la wala du du ma candidat. ah oui ah la constitution l'a déjà réglé. pourtant bu waxoon doon na stabiliser. il l'a il l'a dit il l'a dit il l'a écrit. oui mais redire donc dara. waaw waaw mais mais mais mais qu'on se contente de ce qu'il dit jusqu'à ce qu'il dise autre chose man depuis ma nekk fii maa ngi la ne Mamadou Awaye Ndiaye man gëmu ma ne Macky Sall day def troisième mandat parce que moo ko wax. mais ak ki moo ko wax moo ko bind Sénégal au cœur. Sénégal oui il peut poser n'importe quel acte c'est son problème. il peut poser n'importe quel acte gis nga Mamadou ba ma waxoon ne Moustapha boo ñëwee ngoon dañ def émission koo mun a koo mun a woo keneen c'est pas mon problème à une heures je pour voir si on va faire l'émission oui ou non boo ñëwee sax ma jël keneen di nga am déception voilà ma doog a xam ne nag di am déception parce que trop tard mais lu ma la wax avant ma tooñ la pas arrivé avec Macky Sall mais Mamadou lu ma la wax avant dama lay tooñ pour que Macky Sall njuñ wala bañ ñëw njuñ. maanaam bu ngeen ko yaakaaree ci kàddoom. Ah. ba ba dernier moment. Ah. mu mu war kàddu gi. mais il va réaménager on aura toujours le temps. la république c'est pas du jeu. est leer léegi justement la république. mais man damaa jàpp ne leer na. <laughs> on s'en tient à ce qu'il a dit. ah oui jusqu'à ce qu'ils disent le contraire. d'accord ñu avancé ci waxtaan wi. ak manifestation yi gis dernièrement. Mhm. il y a eu des morts ces deux régions sa gis-gis. ça s'explique aisément Ziguinchor fa la Ousmane Sonko cosaanoo fa la nekk maire c'est naturel et normal que ay parent am ay sympathisants am ay administrés am jàppale ko. ak la plaie du conflit qui est encore béant. oui oui oui mais mais mais. tàmm nañ loolu en fait. mais je crois que Ousmane Sonko même est un acteur pour la pacification de la Casamance. pourtant dañu ko ci dégg bëriwul. oui oui oui oui mais mais quand même même bu ko reproché nag ñu tooñ ko. parce que mu ngi doog a nekk maire de Ziguinchor bi ñu ko koy reproché il n'avait aucune fonction administrative étatique voix oui oui il va en parler. c'est normal si Ousmane Sonko veut diriger le Sénégal tout entier il va parler du problème de la. Pourtant certains lui reprochent euh, d'utiliser ça pour juste gën gën a envenimer la situation déjà je donne un L'appel qu'il a lancé depuis Ziguinchor pour venir à Dakar en disant fekk leen ma Dakar qu'on en finisse avec Macky Sall. Mm-hmm. am na ñu ne il ne parlait pas à ses mm-hmm. mais à forces occultes yi nga xam ne tey jii nii moom la suñu autorités yi di di wax ne ñoo envoyé Dakar. ok les autorités parlent beaucoup de forces occultes ñu ngi koy wax ñoom ñoo xam qu'est-ce que ça signifie force occulte ak ñan ak ñan la nous nous avons nous n'avons pas les informations qu'ils ont. mais bu fekkee il y a des forces occultes. ils ont diffusé des vidéos. oui oui oui je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu comme tout le monde. mais loolu man mënul tax man ma établir qu'il y a des forces occultes de toute façon. Mhm. je fais confiance aux forces de défense et de sécurité. Mhm. qui sont très bien formées qui sont les meilleures presque en Afrique. que s'il y a des forces occultes effectivement ils seront démasqués ça c'est clair. Mhm. et s'il y a des forces occultes aussi l'État l'État devait prendre ses am na loo xam ne bu fekkee. ça fait longtemps qu'il nous en ah parle. depuis deux ans maintenant depuis deux ans il en parle. qu'est-ce qui les empêche de prendre lorsqu'il y avait le séisme en Turquie les influenceurs qui étaient sur Facebook pour envominer la la la situation. la situation ils étaient masqués ils étaient traduits en justice on état doit rester que l'état doit l'état doit rester fort parce que c'est quand l'État est fort que nous sommes protégés. Qu'entendez-vous par l'État doit rester fort ci situation bi ñu toll nii situation bi ñu toll nii ils ont dit qu'il y a des forces occultes il faut les démasquer et les traduire en justice et il fallait le faire depuis très longtemps loolu loo ciy jàng que soit l'État n'a pas fait ce qu'il fallait wala il nous raconte on n'en arriverait pas à ce moment-là mais malheureusement au Sénégal quand il y a des arrestations les il dénonce. mais le le le président ne doit ne ne ne. comment ça s'appelle pas, le président l'autorité en charge de ces arrestations là. Mhm. mais doit faire son travail régalien. malgré tout le bruit. malgré tout le bruit on ne gère pas un pays en le bruit c'est pas possible. aujourd'hui est-ce qu'on peut dissocier ces forces occultes comme on le dit ak les manifestants yi nga xam ne dañuy manifester parce que souvent ils sont sur le même terrain. moi je fais un message pour chacun des groupes mmh. pour ceux qui manifestent parce que ñoom dañoo gis lu leen metti et que ils ont le Sénégal au cœur et qu'ils veulent plus de liberté et de démocratie je les encourage à manifester de manière pacifique et à préserver les biens publics et privés tu qui sont animés de mauvaise foi et qui, et qui font partie de ces forces occultes dont on parle il faut leur les traquer jusqu'à leur dernier retranchement c'est ça nous nous voulons la préservation de la République mmh. mais Mamadou Awa man je suis né à Thiaré dans la commune de Thiaré Ndialgui mon village fait partie des plus petits villages mmh. voilà judo c'est l'État qui m'a encadré jusqu'à ce que je sois là à Dakar en train de débat contradictoire kon du ma nangu képp du ma nangu kenn quelle que soit sa posture di yàq cet état là c'est pas possible muy Macky Sall muy Ousmane Sonko muy kum kum mën a doon ci ñoom ñaar. ah mais dañuy euh, gis dernièrement euh, manifestation yi li xew saccage bi am université bi am ceci l'école form les les journalistes les bus Dakar Dem Dikk le commerce les banques euh, maanaam ñi koy def am na ci ñoo xam ne état jàpp na ne ils sont derrière ñu teg leen loxo. mais l'opposition est en train de dénoncer ces arrestations même am titre préventif mesure préventive yi nga xam ne jëloon nañu ko am ñu jàpp naan ay forces spéciales commande boo fàttalikoo ça fait de bruit les gens dénoncé droit de l'homme si di wax parce que di wax comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose ak ak ak ak paradoxe boobu est que les droits de l'hommiste au Sénégal est-ce que mos nga cee dégg koo xam ne dafa critiqué Pastef mos nga koo dégg ce ne sont pas des droits ce sont des opposants encagoulés ce ne sont pas des droits de l'homiste je les mets tous dans le même sac il n'y a pas de société civile au Sénégal c'est une société partisane il n'y en a pas nous sommes tous des politiciens c'est parce que man lan moo ma arrangé Mamadou c'était je l'ai toujours dit mono sur les actes qui sont posés sur les discours qui sont prononcés on doit dire que autant Macky Sall bàyyil ñi ngay jàpp ni les les pour pour des délits d'opinion mais yéen itam bàyyi leen yi ngeen di inciter à la violence en ce moment on serait équilibré mais Alioune Tine bu waxee ne pour qu'il y ait une paix il faut libérer les détenus politiques il faut faire ceci il faut faire cela il faut et tout ça c'est c'est à Macky Sall qu'il donne des ordres man je n'ai pas vu dans leur communiqué ce qui concerne l'opposition Il n'a jamais été constant. Il n'a, il n'a jamais été constant. Il est toujours de l'opposition. Ça, c'est pas être constant. Est-ce que tout ce que le, pouvoir en place fait est mauvais? Il n'est pas du côté du peuple. C'est moi qui suis du côté du peuple. moi qui suis carrément équilibré mais li ma fi wax Macky Sall ko léegi. c'est vrai dégg ko. Ah? Hmm. te moom laa àndal. Hmm. li ma fi wax Ousmane Sonko déggoo ko léegi. noonu la société civile waroon doxalee. noonu la société civile war a il faut être à équidistance des contingences politiques mm mais bu ñuy saaga ngay noppi bu ñuy dóor kii saaga nga ne déedéet waroo koo dóor c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner alors que le Sénégal a maintenant besoin d'un langage d'apaisement et de vérité mm -hmm. loolu lañ soxla. vous êtes fiscaliste euh, jamono ji métti na trop économiquement ci réew mi. Mhm. Euh, naka nga ko gisee. les pertes enregistrées. te day gën a métti les conséquences seront perceptibles dans trois ou quatre mois. Hmm? je vous assure. Vous nous faites peur là. Ah oui, mais c'est ça la réalité. Le problème est que nous avons les manifestations ont détruit beaucoup de commerces. Ça c'est vrai. Ils ont détruit beaucoup d'entreprises. Créé beaucoup de chômeurs. Créé beaucoup de chômeurs et retardé le travail. Mhm. Les gars sont restés chez eux. on reste Même chez... Même le calendrier, on va Et quand on reste chez soi, on ne mange pas. L'économie ne marche pas. maa ngi koy wax benn copain bi may bi may dem week bi bii passé le péage ne marchait pas. waaw dañ ko bàyyi woon noonu muy dem. ma ne ko on va perdre combien. Hmm, de, de recettes fiscales au titre de la TVA tout simplement. Hmm. ñaata la war a doon par jour. c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent. si on détruit les installations des BRT. Ouais. et du TER. on le fait pour qui? on le fait contre le peuple sénégalais. Hmm, voilà ce que devait faire voilà la déclaration des droits de l'hommiste devait aller dans ce sens-là pour dire que non non non bu leen yàq lii nii yéen a ko moom mm-hmm. te suñu xaalis la ñu leb ko fayaguñ ko ñu koy yàq ça c'est quoi l'argent domestique ak si cause bi gañe population yi le commerce n'ouvre plus banque yi transaction amatul code éducation gis nga école bëri arrêté nañu on n'est pas encore au bout du tunnel vous avez vu ce Ouais, ouais. Il y aura certainement une session unique. Et ceux qui ne penseront pas seront renvoyés. Et mmh. bonjour encore les dégâts. Ouais, ouais, ouais. Alors ils ont eu une demi-chance. waroon am ñaar voilà benn la ñuy am benn chance la la la ñuy amati. est-ce que Alioune Tine prononcé sur ça. Ah, le directeur du CESE Mamadou Ndiaye temps yi passé il a même pas une semaine non deux semaines il disait que ils sont à l'étroit ak seen ay bâtiments ils ont besoin d'un autre bâtiment fan ñu li ñu mu jeex Mamadou quel doit être actuellement le discours des acteurs politiques, qu'ils soient de la société civile ou qu'ils soient des politiciens colorés comme moi. Ça doit être un discours d'apaisement, de dire que stop à tout ça, ça, ça nous appartient. Ah, mais un ça... discours, un discours, c'est bien, mais fi ñu toll nii est-ce que discours rek doy na dans la mesure où am na benn euh, condamnation boo xam ne mi ngi ci bopp Ousmane Sonko donc discours d'apaisement moom du ko dégg il faut aller au-delà au-delà boobu noonu ci sa gis-gis la war a doon. man je man li ma xam mooy une décision de justice on l'exécute c'est pas pour apaiser la tension alors mais est-ce que maintenant pour apaiser la tension on doit on doit détruire toutes les décisions de justice aussi ñëpp yamuñu c'est ça le problème dëgg la on est tous égaux devant la loi mais je veux dire yàlla li mu may nit ñi yamul en fait c'est ça mais s'il fallait s'il fallait dialoguer avec Ousmane Sonko s'il fallait dialoguer avec Ousmane Sonko je suis au conditionnel. Mhm. mais il fallait le faire peut-être avant le verdict. c'est ça maintenant le le verdict il est là. je ne suis pas je je ne suis pas un magistrat je on a vu on a vu su Wade su Wade su Abdou Diouf eh, ay on l'a vu Wade à moment donné il était fini. <laughs> mais vous savez Mamadou su Wade est un homme élégant à tout point de vue. si entre Wade ak Abdou Diouf benn problème bu majeur jusqu'à ce que Wade n'est pas n'est plus éligible amul mhm. c'est parce que Wade est un gentleman ouais. a toujours participé à tous les dialogues convoqués par par par, par Abdou mhm. aussi a toujours été élégant vis-à-vis de Wade. C'était, c'est ça qui nous manque présentement au Sénégal. Il y avait Il y avait un respect mutuel. Mais malheureusement, tey animosité dafa il y a en fait une animosité ambiante une volonté de nuire l'autre de part et d'autre c'est ça man li Ousmane Sonko di vivre nii métti na trop mhm. c'est très dur pour un père de famille c'est très dur pour un espoir d'une jeunesse mais béy wéy na mbuus fi mu nekk nii on devait parler depuis très longtemps mhm. depuis on devait se croiser on devait se parler pour éviter ça parce que l'unité ça n'arrange personne. Mmh, ça, et vrai. le Sénégal doit survivre à Ousmane Sonko et à Macky Et on est à jours de la Tabaski. Ils n'ont mais plus le temps. Ils n'ont plus le temps. C'est ça le problème principal. C'est pourquoi on doit descendre de notre piédestal. On doit laisser de, de côté nos égos. Il faut dialoguer ak président bu ñu demee dialoguer ak moom nañ ko wax seeni condition lan la bu ko président bañee le peuple est là pour juger. Mmh. mais si vous n'allez pas au dialogue. non une erreur sa gis-gis ci Ousmane Sonko mu bañ dialogue bi parce que bi ñu ko koy proposé verdict amagul woon. bon man vous savez que je n'ai pas de leçon à donner à Ousmane Sonko. Mhm. il est arrivé à un niveau où je ne suis kon mënu ma koo jox. de de mais man li ma xalaat mooy li ma xalaat mooy moom il doit répondre à tous les appels au dialogue. malheureusement c'est ça. Mm-hmm. mais rien n'est trop tard. il n'est jamais trop tard pour bien faire. est-ce que amul tamit ñoo xam ne war nañu mën a dox loolu. am na. xëy na ñu ngi koy dox am na ñu ngi koy dox mais aussi il faut il faut tenir une chose Modou Awa Ndiaye. Mm-hmm. mooy présentement au Sénégal il est très difficile de prendre une position. on vous insulte partout. on vous insulte dans les réseaux sociaux mais lim leen jaral ba ñoom ñuy saaga nañu jaral lu ko raw ba Sénégal am jàmm. Ah, mais euh, euh une question ci euh, manifestation yi ak ses conséquences restriction yi ñu gis internet te état bi jël ko ministère de l'Intérieur jël ko euh, ban ban jàngat nga ci am. man de pour man c'est pas la meilleure solution parce que du imaginé les Sénégalais quatre-vingts pour cent des Sénégalais vivent au quotidien. Mm-hmm. da ngay dem ci magasin ba à à six heures et demie jël fa say marchandise ñëw ci VDN bi jaay ko à midi une nga jël ci dara trois mille francs wala deux mille francs envoyé sa njaboot. Mhm. pour ñu dem retire ko dem marché si vous bloquez internet. Ouais. comment ces gars-là faire pour survivre. Mhm. te loolu c'est quatre-vingts pour cent des Sénégalais qui présentement. c'est très difficile. Mm-hmm. nous vivons une situation de précarité extraordinaire. ak ah, aussi ñi liggéey internet bi ñu mel ni ñun. waaw on parvient plus à publier sur YouTube. c'est compliqué. mais man damaa jël rek le plus vulnérables. Mm-hmm. ñi nga xam ne inter informel. voilà nga xam ne internet ñu ngi ci soxla Wave voilà Orange Money. vous vous vous m'excusez de de la pub uh-huh. ou bien des autres opérateurs de transfert d'argent c'est très difficile. Mm-hmm. c'est très te loolu je lance un appel au président de parler aux Sénégalais dans un discours d'apaisement. Justement, on l'attend ci loolu. de parler aux Sénégalais dans un discours d'apaisement. d'appeler tout le monde mu xam ne mu xam ne Mamadou Awa Ndiaye Moustapha Wade ak keneen ku mën a doon ce sont mes enfants. Mhm. c'est lui le père de la nation moom la yàlla tànn kon il doit parler à tout le monde. Mhm. te bu mu déglu ñi nga xam ne dañ koy naan il faut aller jusqu'au bout on ne va jamais jusqu'au bout dans la quand on va quand quand on va jusqu'au mhm. mais on atteint la fin. et quand on atteint la fin on est au cimetière. Mm -hmm. un président ne va jamais jusqu'au bout. dafa bàyyi toujours benn marge. ça c'est clair pour waxtaan. Mhm. na waxtaan ak ñëpp. y compris Ousmane Sonko et l'ensemble des opposants qu'il mhm. parle avec tout le monde. Macky Sall ñàkkul fayda ñëpp xam nañ ko. il a fait ses preuves partout. kon moom gàcce ngalaama moom il n'a plus. comment ça s'appelle de de de de résultats à démontrer il a tout fait tout ce qu'il pouvait faire en tout cas il l'a fait tout ce qu'il n'a pas fait c'est parce qu'il ne le peut pas. il nous reste moins de cinq minutes. voilà euh, deux questions importantes bi ci njëkk mooy le dialogue national euh, jot ngeen seen invitation teew ngeen si yéen euh, seeni exigence wala fi ngeen bëgg waxtaan fa ban côté la jëm. suñuy exigence mooy des élections libres transparentes et inclusives. ñëpp bokk ñëpp bokk. que le citoyen même Macky Sall. Macky Sall moom moo wax ne moom du bokk. <laughs> donc il loolu boobu moo ko wax d'accord. moom moo ko wax bind ko moom nee na moom du bokk. donc là vous parlez des autres. tu as vu mm moi je parle des autres. maintenant Macky Sall dina bokk wala du bokk c'est Macky Sall et le conseil constitutionnel. Macky Sall au point de vue moral. Mhm. le conseil constitutionnel au point de vue juridique. mais man tout ce que le conseil constitutionnel dira. man ci lay ànd. Mhm. lépp lu conseil constitutionnel wax fragiliser suñu institution. foofu laay jëm parce que je ne fragiliserai jamais nos institutions. Mhm. ça c'est clair. loolu c'est un discours responsable. voilà c'est ça. Mhm. une question par rapport ak F24 il prévoit une série de manifestations le 9 ak le 10 la ñu wax rassemblement ak marche ak fi dëkk bi tollu jamono ji ci tension boo leen doon wax di leen digal loo leen di wax. d'abord ils ne doivent pas le faire. Même s'ils le droit. Ils ont le droit, mais tous les droits ne sont pas exécutés. Mhm. Tous les droits ne sont pas exécutés. Le président de la République actuelle a le droit de présenter sa candidature. Mm Et c'est le conseil constitutionnel qui va le valider ou pas. mais pourtant ñoom ñu ngi nii di yow amoo droit boobu. Mhm. kon ñoom à l'état actuel de la situation on n'a pas besoin de rassemblement lépp luñ bëgg a wax mun nañ koo def communiqué wax ko. mën nañoo ñëw 7TV wax ko. Mhm. mën nañoo ñëw dans une autre chaîne de télévision wax ko. ils ont tous les moyens de le dire. Mhm. pourquoi rassembler des populations au moment où tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait un incendie total je ne suis pas d'accord. Mhm. jërëjëf Moustapha ñu ngi lay bu baax a baax sa dernier mot. di la gërëm bu baax a baax di gërëm waa 7TV pour vous dire que fi ngeen jàpp foofu la bu leen kenn xooxotal. merci beaucoup. vous faites un excellent travail et les Sénégalais le savent. nga may ma nag naturellement ma nuyu waa Thiaré Ndial gi sama mhm. commune di leen nuyu ñoom ñëpp di leen ñaan lépp luñ mën ci ñaan pour Sénégal am jàmm nañ ko def mhm. di ñaanal le président de la République yàlla may ko xolu muñ mu wax ak sénégalais yi bañ a déglu kenn mhm. xalaatam rafet na na toog lui seul xalaat lan moo mën a indi jàmm Sénégal il en a les capacités intellectuelles. Mhm. jërëjëf Mamadou lool laa bëggoon wax. di leen jërëjëf Moustapha Wade mu nekkoon euh, sunu gan ñu koy sant ci présence ci leeral yi mais aussi objectivité bi nga xam ne jël na ko parce que ku ko déglu tey ji xam nga ne euh, nekkul di xalamal kenn du pouvoir du opposition akulaay taalaam la doon waxee muy président de l' alliance pour la démocratie et le développement président de la coalition euh,